ñëw waxtaan ak yéen tuuti rek incha allahu rabbi ci li nga xam ne moom moo xew Sénégal néegi nii bokk na ci nag tey ñu indi leen ay information ci pétrole ba nga xam ne moom moo nekk Sangomar Sangomar c'est à cent vingt kilomètres offshore maanaam da ngay jël li nga que mom un hélicoptère ayof et ça te fait à peu près 45 minutes bala nga fay yegg voilà commencé nañu exploitation bi nak bu yagg comme niñ len koy gemlo euh mbir tollu na ci danaka sax presque 150 puits 152 pour être exact donc euh, ñoom déclaré li ñu déclaré vingt trois la maanaam ñaar fukki puits la ak ñett euh, li waral ñu yóbbu fa Antoine Diome loolu dinañ ko waxtaanee tey ñu jox leen nag détail par détail ba ci bato yi nga xam ne ñu ngi manque suñu pétrole bi ñu yóbbu jaarale sax Mauritanie mu doon aussi bato yooyu ñu xam fan la ñu jóge ci société bi ñu jóge Louisiana ñaari bateau yoyu benn bi tudd Black Rhino comme un Black euh, un rhinocéros noir benen bi tudd Black Hawk Black Hawk mom moy euh, ceeli ceeli pitch bu mag mag bi Eagle Hawk moy un Eagle noir euh amna sax benn ci ñaari bateau yoyu comme niñ leen koy waxe encore une fois Black Hawk demna. Il y a trois mois de cela mais Black Rhino mo fa nek ba légui di exploiter am nañu photo yi am vidéo à l'appui yi wane ne ñu ngi exploité oil bi comme ni mu xewee woon ci ngajaga ci gaz bi ba teen bi takkee ci lañu soog a xam li nga xam ne moom moo xew euh, donc aussi ba nappkatu jën yi bañ fa demee seen filet yi ñoo leen doon commencé sonal di lax di laxasu ci bato yi te bugguñu woon àdduna bi xam li fa xew ñu dépêché aussi ay milliards yoo xam ne joxoon nañ ko ministre de la pêche pour nappkatu jën yi boobu tamit détourné nañu alal bi loolu tamit dinañ ci ñëw mais laataa ñuy ñëw ci loolu boo leen xoolee li ma bind ci kaw dama ne coup d'état électoral xam nga Sénégal ñun dañu baaxoo noppi ba masiba naaru laay am ñun dañu baaxoo noppi dañuy toog benn place noppi ba masiba naaru laay am ba Macky Sall sàcc élection yi ñuy yuuxu nag mooy li ñuy ne jaan bi romb na ngay door ci watat ngay ngay dóor ci watatu jaan bi il ne faut pas ça il faut tey dès maintenant ñu génn ñu commencé toccot ndeyu Macky Sall ak waa këram taal leen taal seeni kër taal seeni oto indil leen problème maanaam rey leen ba ñu jeex ñun mënatuñoo toog ci Sénégal di noppi dinaa leen wax le danger gis na Macky Sall kan la def président cour suprême Ali Sireba Ali Sireba Ali Sireba nous ñu président de président cour suprême c'est parce que Momo Macky pour cette élection ya parce que nous mbir mi nous ñu vraiment ñu nous yeewi nous bi ñu ngi nous duma nañ leen ba duma bi leer dañu dem ci nous mbokki nous li euh, euh, électoral yi biñ Ali Sireba mooy ka nga xam ne dafa bañ wañaar loxo mandataire Yewwi Askan Wi ne kenn du ubbi mu déclaré euh, euh, ñële vainqueur benn Bokk Yaakaar lan la ma ki Sall def automatiquement mu xam ne kii c'est son élément mu yóbbu ko Cour suprême Cour suprême dafa am ku fa newoon Cheikh Tidiane Koulibaly la tudd Cheikh Tidiane Koulibaly boobu kan mooy frère Abdou Latif Coulibaly de euh, patron gouvernement wu Macky Sall bi Abdou Latif Coulibaly moom mooy frère Cheikh Tidiane Coulibaly Cheikh Tidiane Coulibaly xam ngeen lan la léegi moom mooy président wu Sénat maanaam élection Sénégal yépp buñ ko dajale woon compter lépp indi Sénat ñiy décider élection yi Sénat foofu la Macky Sall yóbbu nitam muy rakku Abdou Latif Coulibaly muy Cheikh Tidiane Coulibaly loolu benn la léegi kan ngeen yaakaar ne moom moo nekk ci fële ci cour d'appel kan moo nekk cour d'appel cour d'appel bu Sénégal kan la fa Macky Sall teg dama bëgg a xam ndax ba xam ñu ngi bàyyi xel président wu cour d'appel muy Amady juuf même Amady juuf ma nga xam ne moom moo bëggoon moom moo doon sosal Ousmane Sonko ci biñ ko gën a xam bi gën a siiw moom Amady juuf mooy affaire u euh, Jérôme euh, kii bi waay ndeysaan François Mancabou François Mancabou yéen a ngi fàttaliku biñ ko assassiné ci kaso Dakar yi kan moo fa newoon kan moo nekkoon procureur c'était Amady Diouf yéen a ngi fàttaliku même amadi Diouf boobu moo ñu a ah François Mancabou dafa doon mbëkk miir bi mbëkk miir bi ñoom am nañu ay vidéo pour buy wane ne François Mancabou dafa doon mbëkk miir bi ba génn àddina loolu yëpp doon ay fen amadi juuf mi moo yoroon affaire Ousmane Sonko bi kii moo indi affaire li ngeen tuddee noonu euh, mbirum terroriste kii moo jàppoon ñoom Amidia ak ñeneen ak d'autres patriotes tey ñun ñu toog Sénégal est-ce que xam nga ne amadi juuf <laughs> mooy mooy président de la commission nationale des recensements de vote du Sénégal maanaam tey 46 départements yi nekk Sénégal boo demee nga dajale vote yi préfet yi ñëpp dajale ñëpp indi ñëpp lijjanti indi Amady juuf mooy présider lépp ne lii moo xew c'est le président en même temps moom mooy président wu cour d'appel mais président wu cour d'appel boobu bépp vote boo xam ne recensé nañ ko ci biir Sénégal Amady Diouf moom mooy ki nga xam ne moom moo koy confirmé DGE fini de faire vote Dès que de ñu ne duñu loi madame, juge amul juge bu am ci Sénégal ne ah Ousmane Sonko mo gagné élection yi DGE day toog fële mu du ko top. Amadou Diouf ne leen dañuy fen Amadou Diouf ne Macky Sall fi continuer continuer président du Sénégal dal buñu togué ils vont voler les élections ñoom seen yoon nekku si ñaata nit a voter ñaata nit a voter Ousmane Sonko ñaata nit a voter Macky Sall ñaata nit a voter Diou buñu ñu sétane seetaan leen Sidiki Kaba organiser élection yi DGBE bii dàquñu doomu xaram la Fall bi nek fofu dàquñu ko Sidi Sidiki Kaba ñu toog ñu bàyyi ñu organiser ay élection amul Ben juge bu am maqaama ci Sénégal bo xamné day and ak ñun déjà ñom juge yi ñu jël yépp ñom ñoy sen juge yi Ali Sireba mo nekk cour suprême Amadou Diouf mo cour d'appel te Amadou Diouf en même temps mom moy président de la commission nationale de recensement des votes du Sénégal manam lépp luy vote ci biir Sénégal buñ ko dajalé benn doomu adama bi doon kilifa ñépp moy Diouf le procureur de Macky Sall dof bobu ñu yóbbu won moy accusé ay forces occultes ay rebelles ay nangam même Amadou Diouf bobu ah, bi doon inventé invention yep te dara amu ci li moy suñu problème mes frères et sœurs yéen yaakaar ngeen ne ñun ñu tok xaar Macky mu organiser ay élections exclusif pas inclusif hein, exclusif parce que dina leen wax dina xeex def lepp lu mu man buñ ko ko buñ ko ko mayé comme mom loolu la bëgg buñ ko ko mayé dina def lepp lu mu man ba Ousmane Sonko du bok ci élection man xaw ma yende waaye man parewuma toogaat ci toroxaangewu Sénégal toog ñu may toroxal beneen cinq ans dix ans jëmale je ne sais quoi te benn raison rek tax ngeen yaakaar ne ministère yi ñoom élection yi rek lañu ñu yeneen dinaa leen wax lu tax ñun ñu am gouvernement bu dangereux gars yi kaay leen ñu waxtaan ci pétrolu Sangomar Et ce que je vous dire, c'est que je vais pétrole Sangomar, il est à 120 km offshore de Dakar. Offshore, c'est un petit On-shore, Onshore, c'est un petit peu Mais offshore, it's not on the shore, but it's off the shore. 120 km. OK? Les 120 km, xam ngeen déjà ñun Sénégal superficie suñu superficie ndox moo ëpp suñu superficie terrestre maanaam li ñu am ci ndox moo ëpp li ñu am ci tefes amin ci ci ci ci suuf ak suufu Sénégal bi ni mu yaatoo noonu yëpp li ñu am ci ndox moo ëpp léegi ma ñëw fii ma may leen tuuti aujourd'hui au Sénégal boo bëggee dem fii nga xam ne moom mooy Sangomar da ngay jël li nga xam ne moom mooy E, e, e, kii hélicoptère dangay ngay dem yoof nga jël hélicoptère hélicoptère bi yóbbu la quarante cinq minutes est-ce que xam nga ne boo laajee dama bëgg ngeen def ay micro trottoir ngeen dem Sénégal laaj fan mooy Sangomar amul benn wala amul juróomi sénégalais yu xam fu Sangomar féete lu dul ñi fay liggéey voici le danger xam nga ñun Nous le Sénégal a le pétrole. Wow, wow, 2024, 2025. Voilà, non, non, non, pétrole, 2027, les gars. Non, non, non. Nous avons exploité le pétrole. Depuis quand Plus précisément, Fiti Sangomar, depuis 2018, nous avons exploité. Maintenant, comme je vous le toujours, je ne vous mais je vous le indi, avec preuve. Ils ont commencé à l'exploiter en 2018. Ils ont 152 puits. Bolen l'a dit. léegi nous déclaré 23 puits dont ils ont déclaré 23. sur une superficie de 7000 mètres carrés kilomètres carrés 7000 km kilomètres carrés superficie manam ñom amul dara 7000 mètres carrés 7000 hein? comme madame, 7 hectares gis nga tay ñom ñu ngi il se cache comme niñ ko fait, nous nga jaga ak forteza équipe forteza forteza marham ahmed marwan ahmed Hein? C'est le voisin de Macky Sall à Houston, Texas. Madame Forteza xaritu Macky Sall la ki nga xam ne mom moom moom Forteza fële ci Ngajaga c'est un ami intime de Macky Sall c'est des voisins Madame Houston Texas ki keureum dafa fi, que le keureum nek fele. c'est des voisins ñun wóoruñu sax ndax du mom ma Macky Sall keureum. Waye dama bëgg ngeen xam daal tey ñom ni ñuy def nii Ngajaga exactement ni ñuy def nii Sangomar noonu lañ doon def Ngajaga déggoon nañ fi sax Abdoulaye Boun Dionne boo leen ko fàttale ko am na benn moment mu ne yéen a ngi reyante ci pétrole ak gaz benn peppu pétrole génnagul Sénégal te benn peppu gaz génnagul tegu ci ñaari semaine trois semaines Ngajaga takk teen ba takk ba rey affaire bi indi problème ak villageois yi c'est le même problème qu'on a à Sangomar Légi, les employés ni nga xam ñom ñoom ñoo leen di liggéeyal Sangomar c'est des Nigériens et des Ghanéens Amna ñu benn bennal ci sénégalais comme les nettoyeurs ni def li ñii raxas ay ndab ñii def manam liggéeyu golo yi dal. loolu jël nañ ko ñu jox ko quelques sénégalais Manam dans les normes bu doon tay société la bo xam dafa wara liggéey ci intérêt Sénégal doomu Sénégal yi lay génné ñuy liggéey depuis 1960 la France exploite oui d'accord mais on parle de Sangomar spécifiquement en ce moment Légui, nous, sommes des des Nigériens et des Ghanéens nous jël di société bi koy def Woodside Energy man c'est une société australienne qui, comme moi, de Mag O'Neill Meg O'Neill mooy borom société bi man ngeen ko dem à Sangomar il y a une société australienne qui est en train d'exploiter le pétrole le pétrole dont Macky Sall est partenaire Fofu ñoom ñu ngi exploiter environ ci xam-xam rek lo xamne ñu koy mom Mauritanie diko fa pour wat ko encore jaay ko Australie diko exploiter mi ngi déjà mille litres quinze mille litres par jour quinze mille litres ci li ma leen di wax nii rek ci lu tuuti loo xam ne ñoom ñu ngi koy exploiter dañu loué ay navire maanaam dañu loué ñaari navire navire yi ñu ngi leen loué fii Amérique navire yi ñu ngi leen loué ci dëkk bu tudd Louisiana Louisiana moom moo nekk fële ci Nouvelle-Orléans sénégalais yu bari xam nañ ko léegi ndax sénégalais yu bari tey bu ñu leen jàppee ci mbirum Nicaragua bi ñu bari ci ñoom Louisiana lañ leen di yóbbu foofu la prison immigration yi gën a mag nekk Louisiana parce que dafa bari suuf ñu ngi loué ñaari navire yi Louisiana ñaari navire yooyu ñu loué Louisiana benn bi mi ngi tudd Black Hawk benn bi tudd Black Rhino léegi nag comme ni ma leen ko waxee léegi nag boo leen ko waxee ñoom dinañ ko xam parce que Black Rhino jële nañ ko fa il y a trois mois de cela Black Hawk rek moo nekk di liggéey en ce mais dama bëgg ma indil leen déjà vidéo exploitation bi vidéo bi nga xam ne day wane ñoom déjà bato bi muy exploiter pétrole bi maanaam mu koy ŋàcc ci suuf si xam nga danger bi ñu am ñun ci suñu réew mi ñun ay bandi lañu seqal dañu bëgga ngeen xool bato yi ñoom xamuñu woon ne ñun dina ñoo am information bi bato yee nekk nii dañ leen koy won déjà dinaa leen ñëw won léegi li ci des may leen ma léegi tey boo xoolee bii xoolal fi xool leen bato bi xool leen mu ngi exploité yéen a koy gis mu ngi exploité yéen a ngi gis yéen a gis yéen koy gis xool fi gis nga bato yaa ngi nii gis ngeen mi ngi nii ngi exploité pétrole di ko jël di yóbbu lii suñu nit ñi ñu yónni ci biir lui filmer won li parce que bu leen c'est offshore Madame, c'est à 120 km de Dakar voilà je pense que boo leen xoolee de nga xam ne tey Sénégal vous savez qu'on est en danger nous, nous sommes en danger les sénégalais sont en danger band yi nga xam ñom lañu sékkal ñu séqal réew mi kii nga xam mom lañu japp té moy le suñu yaakar moy président Ousmane Sonko te ñu tëj ko ci biir kaso bi ñom ils vont tout faire su fekké ne ñun permettre nañ leen ko ils vont tout faire pour essayer de le garder dans la prison ñun buñu togué maylen liñu bëgg ñom forcing bi ñuy def té amuñu kenn nak ku nekk ci seen ginnaw dama leen di wax dara il faut savoir que on a un petit groupe de délinquants qui n'est plus en sécurité ñom xam nañu loolu ils savent que ñu en sécurité tay ñom bo xamé Antoine ñom xam na ne ñu en sécurité fi mu ne napaté bi ben côté lañ ko japp moy les quelques-uns qu'ils ont pris et mettre en prison té ñu am ben groupe de bras armés bo xamné ne ñoom ñoo leen di jëlal sàmm jëlal leen bari wuñu il faut sénégalais xam il faut ñu xam ne on n'est pas contre l'armée sénégalaise et contre la gendarmerie nationale déedéet te ben nakar la am ci côté boobu nakar bobu ba légui tay ci suba rek ma ngi koy waxtaan ak sama ben xarit Mounama, il y a un petit problème un petit souci pourquoi cette gendarmerie digne pourquoi cette armée digne du Sénégal Nous jox record yi ñu jox ci mais non, non non ce n'est pas possible <coughs> pourquoi cette gendarmerie digne cette armée digne ngeen tok di setan Moussa Fall ak ben groupe bandi ak ben groupe délinquant et vous ne les avez pas arrêtés automatiquement ngeen jël réew mi teg ko ci yoon. amna na ku may ça c'est une question qu'on demande pourquoi encore une fois pourquoi cette gendarmerie digne cette armée digne du Sénégal ngeen di seetaan benn group bandi benn group samba ngeen mën a def coup d'état suba pour arrêter tous ces dérives Niger def ko gënuñu leen xam nga sénégalais ñun lu yàlla sàkk ci Afrique ñun ñoo ci gën a nekk ndaanaan gën a nekk ci góor ñun ñoo gën a nekk góor ci Sénégal ay góor yàlla ñun naka la ñuy mën a toogee ces fils dignes du Sénégal cette armée digne cette gendarmerie digne cette police digne ñuy 17 di seetaan un groupe samba boy ñuy un pays en otage Et pourtant de li man ngeen ko arrêté suba pourtant de suba Moussa Fall peut être arrêté et emprisonné Macky Sall emprisonné Marem Faye emprisonné et ce pays ngeen organiser ay élections yu jub yu transparente doomu sénégalais yi ku gañe jiite réew mi l'opposition sénégalaise xawma xëy na man ak yéen bokkuñu ni ñuy xalaate peut-être man awma xam-xam mais xawma yéen ci ban statistique ngeen di liggéey ak ci ban xam-xam ngeen di liggéey bu leen yaakaar yaakaarloo ne ci seen biir juróom-ñetti fukki xel yi nga xam ne mënu leen déjà am yéen ay parrainage xam nga Macky Sall dafa ne woon déjà day créer commission boo xam ne moom mooy saytu parrainage yi loolu daf ko defoon ci dialogue national am bi na day créer commission boo xam ne moom mooy saytu parrainage yi waaye bu leen fàtte de boo leen ñëwee di compter parrainage yi ci machine ngeen di dugalee parrainage machine boobu mooy décider kan mooy nekk ak ku nekk mais yéen dama leen bëgg a xam comme ni leen ko Macky Sall di defee toujours machine boobu kan moo ko créé software maanaam intelligence bi ci biir machine boobu kan moo ko yor xam-xam bi machine bi di doxee ban doomu aadama moo ko defar loolu laa bëgg ma laaj la ndax man mën naa auto programme sama machine tey dugal ci lu ma neex mu indil ma li ma bëgg parce que programme programme la rek yéen machine bi len Macky Sall di indil mu len di limal seni ay parrainage mu len koy contel tagal len ko ci yoon commission bi muy indi tek sur place commission bi nak nee parti politique bu ne di nga am ben nit bu taxaw mais machine bobu kan mo defar software yi ak ban contrôle ngeen ci am what control do you have over it ban contrôle man mi jangul malen leen di laaj question bi de man sama jàng sori waaye maa malen di laaj bi question ngeen yaakaar ne ñun ginnaaw bi Macky Sall forcé juge Sénégal yi ñuy def tappaleem ginnaaw bi Macky Sall bañee ne du toppati benn juge moom lu ko neex lay def ginnaaw bi Macky Sall jëlee DGE def ko bras armé yéen loo leen di xaar mooy Macky Sall créer leen ay élections yu transparente ngeen ñëw ñu ne leen yéen a gañe ñëw leen jiite Macky Sall sàcc na élections yi ba pare wañaar na loxo sénégalais yi waxuma sénégalais yëpp de wañaar na suñu loxo état yi jël élection yi dugal ko ci poosam ba pare ñun sénégalais yi xeex képp la ñu mën a def pour élection yi jaar yoon xeex képp amul leneen pour toog fii di négocier ak naan xaaral justice waa cour d'appel cour cour wënde ñëwaat mais yéen da ngeen feebar Macky Sall juge atte na jël décision dem jox ko waa DGE DGE ne duñ ko doxal parce que président de parce que ki nekk DGE c'est un corrompu nee leen lu dul topp caga ak ñu may ko xaalis bu bari mu yor ay kër yu dul jeex cendee la nee na moom ay intérêt lay protéger benn groupe doomeeraam la ñu yor bu ñu jiite ñoom ñépp ci seen intérêt képp la ñuy dox yéen ñooñu ngeen di xaar Nous créer une élection transparente ci Sénégal Nous sommes Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko wax na leen ko na candidature a yaakaaru ko ci ben justice ci sénégalais yi képp ginnaaw yàlla ci sénégalais la ko yaakaar la candidature d'Ousmane Sonko ne dépend que des sénégalais ça ne dépend ni de justice ni de la DGE et sa victoire c'est la même chose ñoom xam nga lan moo tax ñoom ñu jàpp Ousmane Sonko bàyyi ko ci biir kaso mais xam nañ ne Ousmane Sonko fuul yu muy drain amul sens xam nañ ne tey Ousmane Sonko bu génnee ci biir dëkk bi un million de personne ñoo koy topp mais il le savent mais loolu moo tax ñu tëj ko ci biir kaso bi xam ngeen lan moo tax jox joxuñu leen parrainage imaginez waa Pastef ne parrainage mais mbeddu Dakar yi day mel ni tulleeg mal le Macky Sall loolu la bañ Macky Sall li muy dof-dof lu nii yëpp karam kalaatul mu jël ay parrainage jox ko Ousmane Sonko ne ko demal wuti say parrainage kalaatu ko parce que bis bu defee loolu c'est le début de sa fin léegi fi mu ne état bu daanu la ci maa tey la ñuy dox c'est un état fini état bu pare ci maa tey lay dox sëñ bi dafa mel ni nga jàpp ca sàcc mu leer ko ne léegi fi mu ne mi ngi ci dundu diggante dundu ak dee maa tey la Macky Sall di doxal la ca des toccottu ndayam moo koy yeggali c'est la des ci Macky Sall la doggali la te doggali bi nekkul ay justice nekkul juge bi après cour suprême après cour nangam cour toccottu ndayam la boobu moo koy doggali na dóor sa nit ba muy waaj a dee nga ne noo léegi damay xaar mu noyyi mu amaat tuuti doole léegi attekat bi atte non non non on a battu Macky Sall dañu battre Macky Sall ba pare dañu war a jàpp Macky Sall jàpp ay doomam jàpp jabaram jàpp Amadou Ba jàpp doomu xarab yi Macky Sall teg ci place yu stratégie yëpp ñu toj seen cottu nday rey leen loolu mooy dëgg mooy dëgg mais ngeen tok seen bir kër yi di casse. « waaw non xam nga voilà loi loi force reste à la loi quelle force force reste au peuple résistance Li moy deug lu la nit wax lu dul loolu waxu la deug tok di xaar Macky Sall pour mu def lan pour mu satisfaire l'élection élection wala tok di xaar Amadou Ba pour ñu def ko lan pour ñu inaugurer un président qui ne peut même qui ne peut même pas incarner 2% de la population pour di bàyyi Macky Sall ak ñii mu fi ne ñuy vous savez combien de milliards Macky Sall a volé au Sénégalais Il da ngeen fébar Macky Sall est plus dangereux que Pharaon ñi tok Pharaon oui Nabilay Moussa Macky Sall est plus dangereux que Pharaon Pharaon travaillait que avec Pharaon et l'Égypte Macky Sall travaille avec l'Occident Macky Sall Amérique lay liggéeyal di France légui nélen Amérique moi, ëpp pharaon mo ëpp dole Amérique wala ngeen ne ma pharaon moo ëpp doole France Égypte mo ëpp dole France Égypte mo ëpp dole Amérique Macky Sall travaille avec l'Occident et il a signé des deals que nous rassurons ko ginnaawam Mom, après moom il mu jël suñu gaz ak suñu pétrole di leen ko jox Macky Sall baadoolo la gaz ak pétrole Sénégal bi il ngi koy jaay ci marché noir bi sax ay négociation ay waxtaan ay talk, ay justice ay DGE aïe nangam faju tout le monde mais c'est fini tu as un traître à la tête de ton pays mais traître es où Amérique vous traître xam nga lu pas koy trahison mais tu es en vie en prison tu ne sors jamais tu sais combien de fois Macky nous a trahi nous mais les sénégalais ñun dañu bari caaxaan ñun ñoo gën a bari caaxaan ci àdduna bi lu yàlla sàkk ci caaxaan ñun ñoo ko gën a bari parfois quand j'écoute mes amis de du même parti politique parce que sympathisant Pastef la bu ma déggee Pastef ñuy voilà yoon bi voilà Ziz voilà d'accord Ziz bi may nañu dëgg waaw après Ziz voilà léegi ñu ngi xaar cour d'appel dinañu may dëgg really cour d'appel really les Ousmane Sonko prison pourquoi sont est en prison Sonko justice bi Sonko justice ils ne sont pas avec leur volonté Manela, juge Samba Sal, li ko rey dit ba mu dossier Sonko mu ne ko Macky yagal na la defal sal boulot mais sal boulot mom c'est fini mais daf ko rey il l'a tué Macky Sall a assassiné Samba Sall Macky Sall bep juge bu nek ci yonam da koy assassiné parce que il a ben bras armé bu salte bu ndaw la yor bu koy defal sal boulot ñun ñu toog di pétrole bi Macky jël na ko koy exploité li tax ma indil leen affaire u Sangomar bi lii information Li, c'est tout simplement pour vous confirmer que liñ len di wax ak li am du deug. pétrole ñung koy exploiter. demal bu dina len indil ben, bu indil dina euh, la prochaine fois dina indi barni, dina len yobbu barni, bu boba ma yobbu len mais arrêtez maki mi ngi tabax poru ndayan. xam nga pour lan pooru ndaayaan c'est pour lépp loo xam ne ñu ngi ko koy vilipande Dakar ñu ngi filmer di wone mu dem lijjanti pooru boppam poor boo xam ne dañ koy defar ba mu baax jël ressource naturelle sénégalais yépp jëbbale ko tubaab yi jëbbal ko tubaab yi tubaab yi bàyyi leen ñu toog fi sama quelque mbokku alpulaar la ay workat lañu quelque quelques uns du alpulaar yépp xam nga xeet bu ne nag ak lu leen xamee sama mbokk al pular yi xam nañu len nenañ la ay warkat lañu dañuy wor quelques waxna nala la de quelques parce que bu len fatte de pular ndaysan xet bu yaatu la mais ci bir xet bobu lañu xamé ay wor warkat dañuy wor Macky Sall ak ñi mu andal ñi c'est des traîtres dañuy wor pular yu bax yi ñom ñu ngi tok seen bir keur yi raxasu nañu ci Macky Sall 10 000 1900 neuf Macky Sall il va tuer tous les Sénégalais il va détourner tout l'argent du Sénégal et il va rester au Sénégal comme un roi Bailen Tchahan, le sénégalais yi faux. Macky Sall Antoine Jom, Sidiki Kaba Ismaël Major dof bi ces imbéciles là c'est des dangers publics <clears throat> Marem Faisal, daf mu parce que dof en pouvoir ça devient dangereux Mon crée un clan contre son propre mari comme jabaru Bagbobi, bi Faisal, elle a créé son camp son clan elle est prête à tout comment se fait-il que Vous nga man balaa Ousmane Sonko ça c'est plus grand que Ousmane Sonko Vous, ngeen man Ousmane Sonko man ma Ousmane Sonko at Ousmane Sonko ay ci masiba xew il a ouvert nos yeux li mom moko wax li kenn intéressé wul moom mom motax bañu intéressé voici la grande relation que j'ai avec cet homme il m'a décomplexé ndax man bobu buñuy wax ci waxu Sénégal damay né ah sëñ est-ce que man dina jël sama temps bu précieux bi makoy yak ci Sénégal xoolal fi ma toog nii samedi soir la ni ñangi bal sama xarit yu bax yi ñu ngi tok seeni boyaar ñi ñu ngi ànd ak seen famille dem ci ay restaurant man dama bàyyi sama famille ñu dem restaurant ak seeni dom ak xalé man ma tok ci bir kër gi di xex imaginez li nga defe ne temps bu neex bi mënuma ko won utiliser pour leneen Ousmane Sonko lolou la def il nous a décomplexé daf ñu yé daf ñu wax né hé Ousmane Tounkara yow mi dem tok Amérique américain yi di la exploiter man nga ñëw sa dëkk et tu peux continuer à être milliardaire tu peux continuer à travailler les ressources sont là les sociétés, tu peux les créer ici et employer des Sénégalais et payer des impôts dans ton pays et aider à développer ton pays. Nous, on est là, on mange, on boit, on dort et on dit il n'y a pas de problème. Ah, Dieu va tout régler, Dieu va rien régler. Yalla, yalla, baisse à toll. Macky Sall est plus dangereux que Pharaon. C'était Pharaon et Nabilahi Moussa. Il y avait aussi David, il y avait Galaya. Dans ce monde, il y a toujours cette personne qui va changer la géographie, cartographie mondiale. Ousmane Sonko, Bisboudane Macky Sall changer cartographie pour Afrique bis Ousmane Sonko Macky Sall africain c'est pas un problème de pastif et de APR et de Ousmane Tunkara, et de Issa et de Demba et de Samba et de Koutba non c'est un problème de souveraineté de toute une nation est-ce que xam savez Afrique Europe Chine et Amérique combine bo dajale Europe nga dajale Chine China nga dajale amerique bo len dajale ñetti rew yoyu Afrique mo len ëpp ci ressource ñun ño len ëpp alal déglu len ma ño len ëpp alal mais ñom ñoo ñu ëpp ay doomu aadama ñun bu ñu juree sax ñu né africain li muy jur bare on est des complexes Ousmane Sonko dafa ñëw décomplexé ñu Macky Sall ak bandem bii ñoom ñooy les traîtres maanaam po maanaam jamono june dafa am ay traîtres jamono june y a des traîtres on n'a pas le moment on n'a pas à attendre xam nga un un politicien américain voilà une fois dit bi ma demee di ko mu ñun Sénégal dictateur vraiment au Sénégal on a un dictateur moom d'ailleurs moom moo ñu tax idée yi ñu indi woon fii ñu gën koo indi mu ne dictateur tat mu ne pour pour gàttal pour régler mbir mi mu ne quand une personne vient chez toi di la jaay doole boo yoree ngannaay looy def ma ne ko dama koy rey di la jaay doole ak sa njaboot ma ne ko dama koy rey pour comme self défense mu ne ma dictateur c'est la même chose dictateur bu nekkee sa bopp réew tant mi ngi ci bopp réew mi dalay noot di la jaay doole da ngay tot cottu ndeyam pare ak moom loolu moo waral coup yi ngeen di gis mënuñu toog di seetaan Macky Sall muy bañ suñu justice di jàpp suñu ay doom di leen tëj di ñu jaay doole di leen napp di def yaataa yombe di dund di jël ay avion privé moom ak ay famille ñun ñu ne tekk tekkaaral ko may xaru yaram non non c'est pas possible ça ne doit pas se passer comme ça Quand ñun suñu pap papi ay jaam la ñu jur nous, bi ñun suñu papi, yi ay nous sommes la ñu jur ay Nous pire la ñu jur nañu taxaw ñu jàmbaarloo ak bandi c'est un petit groupe de délinquants mafia politico-maraboutique quelques marabouts délinquants quelques politiciens délinquants quelques voleurs ñu dajaloo ñu def benn bras armée bi billahi wallahi àndul ak ñoom billahi wallahi gendarmerie bi àndul ak ñoom billahi wallahi armée àndul ak ñoom billahi wallahi gendarmerie national àndul ak ñoom ñun ay doomu gor lañu ñun dañu bëgg lu yomb toog ci suñu biir kër yi Donc, qui sur ginnaaw écran yi naan résistance non it shouldn't be like that we should fight Bane, ne d'accord dénoncer au niveau international xam ngeen lan dénoncer au niveau international pour international bi tal lamp ci Sénégal Tal nañ fa lamp Sénégal lamp yaa tak. tàkk Macky tout def lamudon def parce que lamp yaa tak, tàkk lan mo des dem diapoko buñ ko démé jàpp mais international police Sénégal ak gendarmerie ñoo génn di population c'est fini mais ñun biñu nous doolé nous ranger suñu ay armes toxiques suñu biir nous justice non non non non justice dañ koy def pour formalité mais Macky Sall respecté justice man je ne dis jamais force reste à la loi moi je dis force reste toujours au peuple Nelson qui euh, a Thomas Sankara une jeunesse mobilisée fait peur même aux bombes atomiques gis nga jeunesse ndaw yu taxaw pour bombe atomique sax ce oulen. Sénégal Sénégal nous ñoo ëpp ndaw ci avez dit. buñ vous avez gis nga ndaw yu tuuti yi génn di ñooñu ñu ngi jël gaal yi depuis 1901 ñooñu wàññiwuñu dara ci résistance su Sénégal waxoon naa leen ko démb dinaa leen ko waxaat doomu bañkat yi toujours ñoom ñooy bañkat yi tey doomu bañkatu démb mooy bañkatu tey man mii saa baay dafa bañ ba génn àddina man damay bañ ba génn àddina samay doom dañuy bañ ba génn àddina seeni doom dañuy bañ ba génn àddina doomu workat yi tamit seen doom day wor ba génn àddina seen maam yi wor ba génn àddina seen sët yi wor ba génn àddina sëtaat yi wor ba génn àddina léegi lenn moo des ñu toog Franku laay bàyyi Macky Sall yeew ñu buumu njaam man mii ma rangé samay bagage ñun ñëpp ñu toog wala ñu génn dem toj toccottu ndeyu Macky Sall keex moo ñuy génn ci lii arrêté avec les négociations arrêté avec ça nee naa leen nañu bàyyi ñiy def justice def seen liggéey avocat liggéeyam atte la nañu bayyi avocat yi pour lool juriste liggéeyam wax ci justice la Carcat, liggéeyam carcat la Amérique amna ay juriste des ay juge amna ay avocat pourtant moom mooy première puissance mondiale ay batom toujours ñu ngi ci géej ak ay soldats pare donc ñun tamit faisons la différence des choses a une différence imaginez nous nit ñoo le sénégal en otage billahi a 20 Macky Sall Marem Faisal Antoine Diom Sidiki Kaba euh, euh, euh Ismaïla Fall Moussa Fall bo len compter toutes les personnes qui ont attrapé le Sénégal en otage a 20 personnes on est 17 millions voire 18 mais ñun naka lañu wara mëna noppé tok xaar len ñom ñom ñi Pourtant, à toute fois qu'on a dit non, les choses ont changé. À toute fois qu'on a dit non, les choses ont changé immédiatement. Nana, le politicien américain bi Moma ma toroxal Macky Sall Nations Unies Je Ousmane Je vous ko waaw merci mon ne ma président fi mu ni nii mi ngi laqatu ci biir dëkk bi comme janax parce que vous avez fait un travail extraordinaire mais continuez à le faire il ne faut pas arrêter mais lolo moi dëgg ñun naka la ñuy amee dëgg ci yep, bi yépp àdduna bi yépp ñun ñuy tàcc ñu dem ranger waat suñu ay bagages noppi bàyyi ñoom ñu vous pensez que Macky Sall va respecter les lois du Sénégal c'est lui qui a créé les lois. Il ne va pas les respecter. C'est ses lois. Il va en faire ce qu'il veut. Nénalem. naa tant que tànk jóguñu xeex duñu am ndam ci Sénégal et we will never have peace nañu jël waxu waa I don't want peace I want problems I want problems I don't want peace bugguñu peace on veut des problèmes billahi wallahi tallahi problème bu amé tay Senegal Sénégal kan moy perte ñun ñu ah, qu'est-ce que nous on a à perdre au Sénégal ñun lan lañu am pour ñak on perd quoi on perd quoi mais genn leen jël nday ay fétal commencé fétal nday nit ñi bu dé fofu la wara a jeex mu jeex ndayam bu dé fofu la fofu la bu dul lolu ñu jël suñu molotov dem toj nday yu makki Sall ci palais bi mais il faut se battre mais pourtant sa bint kër nit ñëw di la noot doo lekk doo naan tey rek maa ngi gis benn waay ndeysaan un super acteur de théâtre je le regarde il pleure yenn saay dinañu toog ñeenti fan duñu talcin cin mais gisagu leen dara si Macky Sall doon Amadou Ba ce pouvoir di ngeen tollu Sénégal foo xam ne yenay raw waay eh, eh, raw ndey waa je ne sais pas quoi doo leen lekkati parce que ils vont vous appauvrir pour pouvoir vous contrôler pour ne pas contrôler contrôler population da nga de walaakaanaloo donc bu kenn a ne Macky Sall day le développer Sénégal pour may dolé. Lolo loolu mënta je Amadou Ba vient au Sénégal on est foutu un petit voleur a reçu le pays et il l'a il nous a massacré si le grand voleur vient maintenant on le donne le pays qu'est-ce qui va se passer sàcc bi gën Si mag bu ñëwee ñu jox ko lan xew mais vous êtes malade Sénégal xeex moo koy defar Macky respecté wul yoon pourquoi ñun ñu war a respecté yoon Macky ne respecte pas le pays pourquoi nous on doit respecter le pays waaye Macky respecté wul yoon pourquoi yéen yen bëgg a yoon Maki a bafoué la démocratie. Il a bafoué la justice. On n'a qu'à aller le trouver au palais pour le détruire. Il n'y a pas de justice. Nous qu'attendons. Sous justice amon, je serai le premier Sénégalais à vous dire que, ah, comme Yon Mingi de ligéyem, le Sénégal Mingi avancé, suivons les recours. Mais ben recours Maki duko respecter. Recours ben rek lay def, dina affaire Mambay Nya caaxaanam imaginel yoonu état nekku ci bu indee loolu mu dem yóbbu ko fenn mu ne voilà gis ngeen daan nañu Ousmane Sonko voilà léegi c'est fini dem leen tëju seen biir kër loolu mooy dëgg nañu dem toj cottu ndeyu Macky Sall ci pale bi mooy dëgg man pare naa ci ay caaxaan Tierra, e, je te fais rire oui oui je sais que je te fais rire mais yow sa bajo yaye aussi de lay faire rire yow li lay faire rire parce que man damay toj pas cottu ndey moi j'ai pas à reculer man billahi wallahi tallahi lazim les sénégalais on a battu Macky Sall en 2021 on l'a battu en 2023 deux fois on a fait une petite erreur et Macky Sall nous a jekku Bobu mu ci avantage parce que Nico ko wër c'est des délinquants ils ont détourné des millions ils se battent nuit claire pour protéger sen Non, non non non euh, Thiera non duma Sénégal damay financer ñi man duma man je vais envoyer le finance pour ñu toj sen man suma Je duñu am man bi ñu jàpp sa président bi dagg koy bi man loolu lay def man du ma ñëw lu may lu may wut Sénégal du ma ñëw damay jël kaalis bi financé ko jël xale yi teg leen ci axe ñu dem fekki leen ci biir pale bi toj seen cottu ndey man loolu lay def man du ma ñëw ñëw pour la bu ma ñëwee ku leen di financé qui va financer man du ma ñëw damay financé teg xale yi ci yoon ñu dem jàppi Macky Sall jàpp kooy bi daf ko ni Samuel Doe yeewu ko watat ko ci biir senegal billaay wallaay tallaay mais c'est ça la vérité naka ngeen mën a toogee ci ab réew ñu bàyyi ay ay ay bandi ñuy jàpp réew mi te waa Pastef man damay xeex toujours ak sama xarit yi ma ne affaiblir pasteur téyel leen ñu seen làmmiñ c'est quelques-uns qui sortent là naan waaw bu kenn genn bu kenn xeex téyel leen ñu seen làmmiñ ku bëggul génn xeex na nga tok sa kër Ousmane Sonko lañu ñu gëm te il nous a dit de résister voilà ku bëggul xeex togal sa kër amul problème mais quand kanta di genn fi naan waaw bu len xeex ak ñi len di lo ñun nekkuñu ci lolu voilà ku bëggul xeex bul xeex yow waxal sa waxu juriste te nga yem foofu kuy wax waxal li la intéressé te nga yem fa man bëgguma attaquer leen pour affaiblir leen man bëgguma lu leen di affaiblir donc ñii di génn di wax bis bu ne yéen a ngi wax ñu ngi ne pat bis bu ne yéen ngi wax ñu ngi ne tekk bis bu ne yéen a ngi wax noppi leen parce que Sénégal bi ku Macky Sall fayul ku Macky Sall fayul nee nga sénégalais yi ñu génn ñu dem fekk ci pale bi toccottu ndeyam ku Macky Sall joxul nga lekk ku lekkul yaa ngi wax dëgg ndax dëkk bi li fi ne xam ngeen ne yoon faju ko ban yoon juge décidé wul barki dem boo njaay tu as un membre de la DGE un imbécile koo xam ne nee naa leen ay waykat lay tëdd ci taabalam bi du dara nee du dara c'est quelqu'un qui ne vaut rien ñu toog ne Baye Mackissal. Macky Sall muy yaataa yombe ñële opposition lañu duñu opposition parce que opposition bu nekk ci Sénégal te nga ànd ak sa xel xam nga ne élection doo ko gagné Sénégal man maa leen wax lii bu ñu toogee ne pat ci doxalin bi bu ñu demee élection deux mille vingt quatre billahi wallahi tallahi lazim le vingt sept février bu amee beneen président bu dul Amadou Ba ci Sénégal tuf li leen ngeen ne ma xaaf tuf te bu boobaa di ngeen comprendre li ma doon wax yépp te di ngeen comprendre li gars yi doon wax yépp et ce sera trop tard parce dinañu commencé waat indiwaat même dictature bi bi ko gën a garaaw sax ñoom bañuñu sax ba dem jëndi ay mercenaires ay Mauritanie ak ay Mali ak feneen di leen indi nee naa leen sama mbokku alpulaar yi am na ci ñu baax mais ñu bari ci ñoom ay traître am na ñu baax a baax a baax nag ñu jóg ñu gëm yàlla moo tax Thierno Souleymane Baal ci fan la jóge ci alpulaar yi mais alpulaar bi gën a bon aussi Sénégal ci alpulaar yi la jóge muy Macky Sall ki gëna baax ci histoire Sénégal xal pulaar la muy Cheikh Souleymane Baal suñu mam ñom Seigne Touba ñi ngeen di gis maam Alaaji Malik ñom ñep ay al polar. c'est des polar. mais les traîtres aussi c'est des polar. Mali gis ngeen li fa xew ba muy tak ay alpulaar Rwanda ba muy tak ay alpulaar yeneen rew yi tak yëpp ay al la réew mu takk ci aduna bi ay ñub ay alpulaar yu bonako a taal ma len wax li léegi nag dañuy jël suñu ay responsabilité wala ñu ne patt toog benn kalaa la bu délinquant bu bon bu ànd Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba voilà euh, euh, docteur bi maanaam juge bi alpulaar xeet bi gën a baax ci xeet ci àdduna ñoom la mais xeet bi gën a bon aussi ci xeet yi ñoom la ci même xeet bobu nit ñi gëna baax ci aduna bi fofu nga leen di fekk ci même xeet bobu nit ñi gëna bon ci aduna bi fofu nga leen di fekk est-ce que xam ngeen ne aujourd'hui les gens qui sont devant ce combat c'est des alpular parce que xam nañu ne Macky Sall tilimal na deru alpular à travers le monde Amadou Ba mom gaay yaangi layam layam ne guinéen la ñi naan fuutanke la je ne sais pas mais defe guinéen bi gëna a defe naa ñoom bañ may attaqué man guinéen guinéen guinéen Amadou Ba la ñu doon calculer les sénégalais levons-nous et faisons face nañu bàyyi caaxaan bi te bàyyi layam layame bi man lii laay woote guddi suba ngoon bëccëg te pare naa pour continuer financer pour ñu taxaw fi mu toll nii tembe ñu def face parce que comme réew mi léegi amatul yoon nañu katt ndey lépp ku nekk jël sa wàll nga dem toog mais toog di noppi di layam-layame bis mu na di wax ay waxi dof di déglu ay nit ñuy ñëw ñaan naa leen sama mbokku Pastef boo leen ñëwaatee teg leen wax leen rek yéen seen mbiru juriste waaye kanta bu leen génn nag bu leen def nangam bu leen ci duggati ku ko def dinañ la attaqué te dinañ la attaqué attaque boo xam ne ragal naa ne bu ñu paree ci yow dootoo jarati dara ci àddina parce que li ñu xam bari na li ñu xam bari na soxlawuñu benn doomu aadama buy ñëw di ñu wax li ñuy def nañu génn gàddu bant yi dem fekki Macky Sall ca pale ba ta cottu ndeem ba ñu dalee ànd ak Macky Sall ba léegi victoire yi ñu am yépp xeex moo ñu ko may ana ban victoire lañu carte ma samay ñu naan la force à la force nangam ban victoire lañu massa am ci and ak Macky Sall ci ngor ban victoire masul am amul ben sénégalais bu mën taxaw mune ma ah vraiment bañu défé ni sëriñ bi bi wax Macky Sall wul sëriñ lijjantiwul lijeenti wul kenn Macky Sall bopam posam wa kërëm ak Moussa Fall ñew ne ko randul nga xéjal ma ay bandi la jël ñu jox leen suñu réew mi Antoine diom ñew ne leen ñep leen ma Ismaïla Major, un professeur Il faut savoir Kaba public. il faut savoir que c'est un danger public Sidiki Kaba dundam rek danger la xoolal suñu sœur Zahra Zahra Moussman Sonko une jeune qui a créé son entreprise à Tamba Zahra mënul ray pitch. Zahra Rayul pitch xam nga lu muy def defar ay saaboom defar ay karitéem defar ay affaire am di ko dugal ci internet bi di ko jaay ndeysaan gore jàpp nañu Zahra dem tëj ko ci biir kaso nit dof lu mu def zéro Ami Dia lan la def ay Falla Fleur ay aji ndaw aji ndaw Pastef ci aéroport bi lañ ko tibbee Ousmane Sonko lu mu def doomu sénégalais yu baax yi yépp jàpp nañ leen dugal ci biir kaso bi ay ñoom dongu jóob ay nangam te pourtant loolu ñun ñoo leen ko may parce que gis nga ñooñu ñëpp lu ñu def ils sont allés les cueillir un à un bàyyi leen wax ay groupe nee naa leen génn leen commencé taal kenn ku nekk ci yéen gis nga tey benn doomu aadama mën na def impact yu mat xam nga tanel yi xam nga pax yi nga dem nga dagg ay fil nga dem nga taal ay central yu ndaw soxlawuloo dajaloo buñu talé liñu wara tal Antoine diom def pono yi boko talé gis nga foire mais nañu arrêtons de négocier avec des bandits quand tu négocies avec des délinquants tu leur donnes plus de temps à t'égorger à t'égorger Macky Sall minute buñ ko may minute bu upp man faalewu ma li may def déggu naa leen man ay appel de l' insurrection appel de l' insurrection appel à bombarder la mère de Macky Sall man loolu laay woote man woote ma insurrection j'appelle à bombarder la mère de Macky Sall et sa famille mais nga nekk ci réew moo xam ne amul loi man ragaluma j'ai pas peur réew moo xam ne juge day dogal ñoom duñ ko appliquer est-ce que xam nga ñoom ñoom ñoo la gën a tey ne ñoom picc sax duñ ko tëj ci turu Sénégal Even un oiseau. Même un oiseau n'ira pas en prison au nom du Sénégal. Un oiseau. ñoom arrangé nous leen du le Sénégal Sénégal. la justice internationale parce que nous ne du jàll ñu Nous, lan la on s'assoit pour attendre qui Jésus-Christ venir vous le délivrer on attend Mohamed sallallahu alayhi sallam on attend qui Nabilay Moussa venez nous sauver Amatoul. tous les peuples qui sont libres ont résisté et on a commencé la résistance terminons là le président Ousmane Sonko n'appelle pas les Sénégalais à attendre une justice manipulatrice Bindel na l'en ko barki Dembo Ndiaye na faire na grève de la faim lay il est faible la dernière personne qu'il a vue m'a fait peur. il a perdu 17 kilos. 17 kilos. On va s'asseoir, le laisser mourir. On va trahir Ousmane Sonko. On va trahir le projet. On va laisser Ousmane mourir. Ousmane est en grève de la faim encore. On va le laisser mourir. Il a perdu 17 kilos. il n'a jamais eu peur il n'a jamais reculé musul reculé. moment bu nekk ak combat en ce moment il est dans ce combat parce que combat bobu rek la am Ousmane wul kenn man ma leen di rassurer ne wul kenn pour mu wax ñu ñu tok ñu a ku leen ko wax day fen mi ngi wax ci Ousmane yónniwul kenn mu ne sénégalais yi toog leen xaar Macky Sall yónniwul kenn mu wax loolu ñi koy wax wax leen ko ci seen coobere bopp et prenez vos responsabilités arrêtez d'accuser Ousmane yónniwul kenn pour ñu toog yónniwu ko ku ko wax ne leen ko Tunkara nee na da ngay duul Ousmane Sonko yónniwul kenn pour ñu toog ñu xaar ay recours xaar ay nangam ila bien écrit et on a bien lii résister résister Ousmane nee na moom wóoluwul justice wóoluwul benn doomu aadama pour assurer li nga xam ne moom mooy candidature doomu sénégalais yi rek la ci wóolu kenn ku nekk ci yéen tey tëddal sa biir kër nga yeewu nga dem nga xool sa bopp ci biir seetu nga xalaat sa futur ci Sénégal ak say plan nga xool ndax yow sa vie day avancé Sénégal benn groupe bandi moo ko jàpp ñoom ñooy doon ay milliardaire seen doom yi ñooy doon ay milliardaire ñoom ñooy yaataa yombe ñooy takk ci jabar yu rafet yi ñooy laal ci xale yi xool leen Aziz Ndiaye barki Dembo Ndiaye takk na xale bu am vingt deux ans vingt trois ans wax na dëgg yor xaalisu état di ci yaataa yombe di dem ci banque yi di lépp di def yëfu doomu xaram yi yépp nekk ci réew mi ànd ak Macky Sall lu ko neex def takk na jabar ju ndaw bu ko neexee sax bàyyi aawa bi ustaas yi di ñëw nag di duula ka dajale histoire su TF yi ah Aziz Ndiaye nag ku baax a baax la ku baax la lu muy liggéey dites-moi ce que Aziz Ndiaye travaille Aziz lu muy liggéey wax leen ma ko xamu leen ko man dama dëkk ak kooku Amérique ñun dañu xam ay nit ñu dëkk ak ñoom Amérique mënatul sax ñëw ci réew mi il est expulsé d'ici parce que fraudeur la fraude lay liggéey ñun sénégalais ñun ñoo tàppet ñun te du moom rek Aziz Ndiaye bari na ay morom Sénégal ay Doro Gueye c'est des manipulateurs ces gens là c'est des tricheurs ay reykatu nit lañu ñoom ñoo yor accaparé milliardu dëkk bi yëpp ñoom ñoo ko yor seen poos yow il va falloir nga leen di beeg ñaan ñu may la dix mille vingt mille cinquante mille waaw jox la oto wala may la tuuti euh, un million deux millions ñun allons nous battre Macky Sall moo ne sénégalais yëpp mune mom, bi mu pour voter amul sax carte mu ñew policier bi ne ko def mu fokkat mu fel policier bi dem voter ñun ñuy tok ñu ne force la la loi wa dañuy dem loi on est allé à shore. on nous a donné une victoire éclatante Bodemet demé ci téléfénal ma ki Bouba Ndour a nga fa tok waaw man waxon na len bu len contane waaw décision bi ñu jëlee décision bi ne won na len bu len contane ñom ñep dañu wara dem toj sen cottu tous ces bâtards là

quatre heures du matin la jógee kërëm bo len xoolee photo yi mi ngi taxawon ni di xeex ak homme garde ben doomu burkina be moko def c'était l'élément déclencheur pour faire tomber le Burkina ak Ben Ali Ben N'ar, buy jaay fruit ben nit bu jang bo paré di jaay fruit ci mbéd mi mo tal bopam mo don élément déclencheur vous savez combien d'éléments déclencheurs on a eu au Sénégal ñu talk di may Macky Sall di ko may di ko may Macky Sall xam na ne danle. Ma Macky Sall li may wax nii mi ngi puub yam. xam ne sénégalais yeewu xam na ne sénégalais ya ngi may déglu xam ne li may wax ni c'est dangereux pour son existence xam ko bu ma cinq personnes dinañ ma woo nitu Macky Sall waaw Tunkara déet bu leen def noonu waaw d'ailleurs sax mën nañoo waxtaan dëkk bi nañu waxtaan Jubo ko loolu yëpp c'est du banditisme banditisme la banditisme d'état sans précédent Macky Sall dafa bëgg jàpp Sénégal comme réewam dégg ngeen ko bi mu demee ci sëñ Mountakha waaw nga teg réew mi réew ci loxo yu wóor moom moom moom baay moo kattan moom réew mi Amadou moom moom réew mi Kumba Timbo moom moom Sénégal dinaa jël réew mi waaw jox ko ci loxo yu wóor waaw dinaa teg réew mi yaa moom réew mi Ya kattan ndayam yow ya mom senegal yow sa baye ko mom mak ya mom senegal yow ya mom senegal wala sa Kumba timbo ko mom wala sa baye Amadou yow xam nga ne tego rew mi ci loxoy wor yow xam nga lol Amadou Ba moy loxoy wor waja nga xam ne muy ñew ci rew mi rek la mu ëpp na genn walu genn ëpp na cinq cent mille milliards Amadou Ba la mu détourné ci Sénégal ëpp na dix mille milliards ba pare Amadou Ba moo ëpp dang côté xaalis yow ngato fa nga toog naan way damay jël réew mi teg ko ci ay loxo yu wóor loxo yu wóor yéen la yéen loxo yu bon yi seen loxo yi setut yéen setu leen ñun sénégalais yi ñoo ñàkk fayda maa ngi jégalu de baal leen ma ak waaye ñun dañoo ñàkk fayda tàmbalee ko ci sama bopp ñu ñàkk fayda lañu amuñu fulla amuñu fayda dañuy door suñuy yaay ñu ne pat ñu door suñuy baay ñu ne pat ñu jàpp suñuy doom rey leen ñu ne pat jàpp suñuy jarbaat rey ñu ne pat rey ñu ne pat boo toogee sa kër ñu ñëw rey la léegi lu tax doo dem xeex pour dund ku toog sa danañ la fa fekk rey la buñ la reyul ak fetal rey laa xiif wala toroxal la ba nga faatu mais yow boo nekk boo amee jom da ngay dem xeex tu prends les armes tey juróomi doomi sénégalais tàmbali woon kii jóge fële kële jóge fële ñu teg seen bakkan wallahi teg ko ci loxo yàlla billahi dinañu am ndam te dara du leen dal regardez le juge Sabassi Faye délinquants ils ont menacé sa vie ils ont tout fait mu dem ci justice Ils ont coupé courant dem il a dit au greffier va m'acheter une bougie et amen nous talat courant bi mu le résultat Nous, ñun dañuy tok, baye imbécile ñun dañuy tok fiñu tok pat bàyyi Macky avec ses délinquants prendre le pays en otage ñu ne pat diko ko di déglu wal fajiri Mustapha su ñëwé def ay ay ay ki yu extraordinaire ay ay show yu extraordinaire pap Alé ñaa ñëw ne ko randul Pape Alé nous dit toutes les vérités du pays pare tek kenen ñëw ni dit toutes les vérités du pays

taalal ma télé bi YouTube defal ma YouTube ma seetaan Tunkara loolu moo mooy changé ndey après wu loolu mooy changé ndey après wu ngeen defe ne américains yi buñu togué xam nga mustapha bu ko dégloo Moustapha Diop mu wal fadi toujours il te dit ah en Amérique euh, Clinton euh, Lincoln avait dit en Amérique euh, le juge Sacha a dit en Amérique le juge Nangam a dit l'exemple du monde c'est l'Amérique L'Amérique n'est pas libérée avec des cuir dents L'Amérique est libérée avec des armes. Les Américains ont refusé d'être manipulés. Les Américains ont refusé de se faire dicter. Les Américains ont refusé de se faire baiser par des bâtards. Les Américains ont refusé de se faire diriger par des dictateurs. C'est ça qu'ils ont refusé. Nous, les Sénégalais, on laisse un imbécile avec un demi-centimètre de Bangala qui vient nous manipuler nous Macky Sall tout sax deux centimètres la si fii tok, ñu ne non dañuy déglu Macky Sall Macky Sall faalewul seen nous fi may wax ak nous mi ngi tous, ak dara ni nous waxee man dama am ay dom te vidéo yi dina rester dans cet internet kol bu jeex momay wax lo pas awma appétit lek amatuma appétit je bois du café comme un fou je ne dors pas assez parce que mon pays est dirigé par des délinquants un groupe de cartels a pris le Sénégal en otage on a d'autres traîtres qui sont cachés dans les groupes, qui nous disent non, ne vous battez pas. Deflendang, leen ndànk dina baax wow, dina baax Sonko wow, dina voilà Sonko dina jël réew mi incha rabbi Sonko Sonko jël ban ces bandits là je vous dis que tey rek li am j'écris j'écris j'écris des notes je vous dis que pétrole Sangomar ñoom ñu koy je vous ai montré les bateaux ils nous ont déclaré 23 puits ils ont 100 ils ont déclaré 23 puits. Ils ont 152 puits. Ngadjaga, gis voyez, ko le gaz bi lakkee Forteza exploite ngi exploité gazu depuis 1900 à jak bun joon dafa dem taxaw assemblée nationale du Sénégal avec les députés du Sénégal mu ben peu pour gaz ben pour pétrole génnul Sénégal a ne pat ñun ci un moomu la le nous bëgg a si suñu kër yi je vais recevoir 120 appels ah vraiment grand ton karaté content naa ci sa live bi t'en naa ci yow grand billaay content vraiment aujourd'hui je vais dormir le live ne va jamais aller combattre Macky Sall c'est toi la personne qui a écouté le live qui va mettre ta culotte qui va mettre tes chaussures et mettre ta chemise et te dire que ce pays m'appartient je préfère mourir comme héros que de vivre comme esclave Bodé comme héros au moins di nga dem adjana, di lek yàpp bu neex di lek nak yu neex mais bodé comme badolo, da ngay dem safara do dem adjana, ba pare da ngay torox aduna, torox alakhira. c'est ton choix moi je peux rien te dire I can do not a damn thing for you but I can tell you damn sure if you don't get up and fight Macky Sall va nous attraper en otage pendant des décennies. Amadouba nous a déjà dit que voilà vraiment alhamdulilah gor je vais rek ma japp ci rew mi buma ko jëlee yow yaay continuer diriger Amadouba nous a dit. mi ngi on est là on est là mangi samay on va libérer le Sénégal non non non on ne peut pas libérer le Sénégal n'attendez personne gis nga bu leen xaar ken bu kenn xaar Ken ne ku na ne connaît fangane defal li tu te lèves tu allumes ton quartier tu te lèves tu allumes des centrales euh, électriques tu tu te lèves tu allumes des stations d'essence tu vas voir tout de suite ça va déclencher et le combat va commencer waye tok suñu biir kër yi suñu ne pat on s'arrête on nous manipule Gaït tu vas voir les gens de Macky Sall vont sortir bu Tunkara, il est fou Wow, daf la. waaw bu Nyom génn ñoom seen duñu mon ami il y a 33 ans de cela, j'avais pris la décision de quitter le Sénégal. J'ai sept enfants. c'est ma vie privée, je vous le donne. Hein. J'ai sept enfants. J'ai trois enfants en université. Un, déjà fini, et deux, deuxième presque fini, et troisième vient de commencer. J'ai une société. Je travaille, je dors bien, j'ai une maison belle voiture, belle moto, j'ai une vie qui ne dépend pas du gouvernement du Sénégal. Je m'en tape les couilles de parler du Sénégal. Je peux rester là où je suis, dormir et, brûler la yap chaque jour, me Je peux le faire. Je peux me nourrir de la viande pour le reste de ma vie. vous pensez que je me bats pour mes intérêts non je me bats pour les intérêts de mon peuple je n'ai pas à me battre je ne dois rien à personne ba ba sama si Ousmane Sonko était devenu président du Sénégal aujourd'hui je vais encore le redire pour Ngendego. je ne prendrai aucune position dans son gouvernement aucune déglu ma de ben ndombol gouvernement ken, personne amul Ben gouvernement tok Sénégal may jël ndombol si je voulais aujourd'hui 2 milliards dans mon compte Macky Sall le main. si je voulais aujourd'hui être ministre Macky Sall mon soxlawul il me fait un ministre de quelque chose il peut même me faire le ministre des moutons il peut créer demain le ministère des moutons il me fait un ministre Li, on se bat on se bat et on continue à se battre on continue à se battre on n'a qu'à se battre l'Occident sait bien que Macky Sall est un voleur et un dictateur ils le savent c'est pas leur problème de régler le problème de Macky Sall c'est le problème des Sénégalais la dictature est dangereuse pour tout le monde. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour ma maman. C'est dangereux pour ta maman. nañu génn ñu xeex xeex Cœur dagg moi, njaam waxtaan daggul buumu njaam waxtaan ginnaaw bi moi daggee buumu njaam bi ba pare ci la góor yi di waxtaan di négocier nu ñuy bi pour mu il faut ñu il faut nous faire. bu ñu kexul Ousmane Sonko du guen prison waxatuma la di nek candidat je vais vous dire vous on est dans des rêves très profonds pour penser que on va rester ici on va discuter oui ça va Ousmane Sonko sera le prochain président du Sénégal really you are stupid you are so fucking dumb you make me dumb cela ne se passera jamais that's never gonna happen gay nak maa ngi jël kàddu gi encore di ko def kàddu ndénkaane suba dinaa ñëwaat ci dimanche bi te day gën a tàng rek li ma am pour dénk leen mooy xam leen ne xeex rek moo mën a dagg boobu njaam mi tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller te battre takkal say dàll jëlal sa essence demal taal station bi la gën a jege wala nga dem taal centrale électrique bi la gën a jege boo xam ne du la sonal sax da ngay dox ndànk jël sa biteelu essence dem gis nga benn groupe foo xam ne koñ bi yëpp fa la seen électricité ne nga sotti ci ndey essence taal dem tëddi sa kër nelaw xam nga luy xew ñoom ñëpp ay yeewu ndeyam lu ñu am électricité ngeen dem xool yoonu ndox yi ngeen def ndeyam noonu ginnaaw suba ñëpp génn ndeyam dem jubali bale maa leen wax lii gis nga bu ñu amul courant amuñu ndox ñoom ñëpp dañuy génn ndeyam sénégalais confort la bëgg su amul confort ñoom ñépp danañu génn ndeyam wutali palais xam ne Macky sàll pour mu il faut mu génn fi ñu toog di déglu ñoom temps yi li ñu jël mooy jël ay bato di ubbi bato yi Amadou sàll ak yenn maire yi di jël ay bato di ko costé naan gars yi dugg leen génn leen réew mi ñu ngi génnee ndaw ñi réew mi quelque quelques uns taal leen ndey réew mi te jël seeni ay responsabilité man de ndaw yi ma xamoon ba léegi ñu ngi Sénégal pour ngeen xam rek quelques-uns yi ñu génne ni man xawma leen sax xawma ma fu ñu jógee ci village yi la ñuy ñoo ñu mësuñoo xeex xeexu Dakar donc ñun nañu génn am fulla am fayda dem tot cottu ndeyu Macky sàll ci pale bi délogé ko génnee ko réew mi jëlaat suñu réew teg ko ci axe waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu